fii ci Kaolack la mbooloo mu takku bàyyeekoo ànd ak Serigne Moustapha Mbacké Abbas ngir dem seetal dëkk bi nga xam ne moo di Poroxaan waajal màggal gi nga xam ne moom lañ jagleel soxna Jaara Bousso mu war a doon le 28 mars Serigne Moustapha Mbacké Abbas liggéey bi nga xam ne ndigal la ci am ci xalif général de mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir da ciy taxaw saa su ne ànd koog mboolem taalibey Kaolack yi muy wane ak mbégteem ak passif gi nga xam ne taalibey ñu ko ciy wane. sunu kàddu nag wala suñu yëg-yëg ci liggéey bi yëg-yëgu sant yàlla la rek ndax ab taalibe moom amul lu dul jëfe ndigal laa tafaalu chean bi geyri iznin fal iznu chartun fi qabuli chani kon bu ndigal jógee Cheikh Mouhamadul Mountakha ñëw fi nun nu jot li ko bokki taalibe yi bokki taalibe yi wuy si wuy si guraw gu guraw sunu njort loolu sant yàlla rek la def kon noo ngi sant bokki taalibe yëpp ñu ne Kaolack ak biti Kaolack fu waay mën a jógee ñëw bokk ci liggéey bi sant nañ la bu baax a baax gërëm nañ la xam nañ sa taxawaay liggéey bii nag day liggéey boo xam ne liggéey bu yàlla barkeel la ndax kenn ku ne xam na ne Cheikh Mouhamadul Mountakha fi ko liggéey bi toll rëy na lool. mboolem taalibe yi nga xam ne teewoon nañ bale mi beg nañ lool ci jëf ji. ñu ngi bàyyi ko Italie dëkk bu ñuy wax Bergamo. boo gisee ci suba ba léegi kenn noppaluwul kenn dalluwul kenn deful leen lépp ci liggéey bi rek te seen bët ci liggéey bi rek liggéey Sëñ Tuubaa rek moo leen ñor boo xoolee li nga xam ne liggéey Sëñ Tuubaa moom moo ñor moo ñor euh, taalibe yi. taalibe liggéey Sëriñ Tuubaa rek moo leen ñor. waaw liggéey bi moom gaaw na ndax gaaw gi moom bokk na ci li ko def mooy pas-pas bi nit ñi ñëwaale ndax damay faral di wax nit ki sa yéene bu sellee li ngay def lépp suñu borom dala ci dala ci taxawu te mbooloo moo xamante ne nii ay nangami junni la waaye ñoom ñëpp kenn ku nekk ci ñoom am pas-pasub ne tey man maa war a bale dëkk bi wax dëgg yàlla bu ñu tasee luñ romb rek day daal di set. mboole matuwaay jëloon nañ ko ba ci ñi nga xamante ni dañoo fare kër docteur ñoom it di taxawu ñi nga xam ne dañoo ñëw woon bale si dëkk bi. waaw dañoo dañoo ñëw fii ngir jàpp ci liggéey bi parce que mbooloo mu jëm nii bu ñuy ñëw yaakaar naa ne dina baax euh, ñuy wax euh, set ak sellal avant jour J muy poroxaan bi ñu ñëw euh, teew si pour jàpp ci liggéey bi côté bi ñu ne muy côté sanitaire. ginnaaw takkusaan fekk nañu bale dëkk bi yëpp ak mboole mbedd ba ñu set ñu dem ci sëriñ Bassirou Mbacke poroxaan mi jiite comité d'organisation màggal poroxaan bi. mu soññaat mbooloo mi sant bu baax a baax Serigne Moustapha Mbacké Abbas ak waa kaw lax seen taxawaay jëme ci dëkk bu sell bi. yàlla na nu ko yàgg a def. Moustapha mii itam. Moustapha mii. nga xam ne. nga xam ne. lii lu mu ci def lu mu def sëriñ bi la rek la ko defal taalibe yëpp la ko defal lañ ko defal lu ma ci wax sëriñ bi la ko sëriñ bi laa ko waxal taalibe yëpp la ko waxal nee na mi ngi ñu leen di sant bu baax di ko ñaanal bu baax di leen ñaanal bu baax sëriñ Mountakha Mbacké Bachir xalifa général des Mourides bëgg lool ci jëf ji ba tax na tey jii ci altine ji bi muy dem Poroxaan jaar na kaw Kaolack ci Passoire mbooloo mu takku daal di ko fiy teertu mu daal di santaat bu baax sëriñ Moustapha Mbacké Abbas waaye bég ci taxawaay bi nga xam ne mboolem taalibe yi am nañ ko saasu ne ci poroxaan di ko setal laatay màggal gi